altinay tey gii day moo nar a tàng te yàgg wala wal fu ko dañee naan maan altinay ndakaaru njaay wala sax bu senegal war ngal këpp bugaan gay dara ji turbine yéen kaay naan déet la ma yàgg wax kay laay wax ndax fu tooñ yendu ma ni la dëgg-dëgg ndax jàmm mën na faa fanaan gay naan ousmane sonko loo ko mënti waxilit ma ni la victime uk système bi la xam nga nguur gi bugaan nay wax ci turbine yéen kaay de le mandat naan maan mer ba futtu kay la njiital gëm sa bopp def turbine yéen kaay naan kon bul fal gémmiñu sàmba may ma ma yëggali dama ne bugaan gay dani ma nga naan nguuru Macky Sall bii seen xëyug seenu gont day lenn la moom moo di nag fas yéene fa xas moom jiital Pastef Ousmane Sonko ci làngug politique gi xam nga bu ñu demee ba Ousmane Sonko ak ni mu toll ci réew mi ak dayoog Sonko ci réew mi ñu koy tuumaal ay sàccuk téléphone ay caaxaan la waay te caaxaan yi nga xam ne ñu ngi koy toppee Ousmane Sonko daal dinay wane nag dëgg-dëgg ne gaa yi nag ay ndëgg sërëx lañ ko tegal seenu xëy ak seenu gont moom moo di jàpp Ousmane Sonko l'indépendant yéen kaay naan maan bugaan ngay artu waa gi ci ñaawteef yi nga xam ne ñu ngi koy teg Ousmane Sonko lërëg regard naan boole koog mer ba futu le mandat naan jiital gëm sa bopp daal ma ngay défendre Ousmane Sonko waa grand place naan Bougane Gueye Dany ma nga naan lii ñu jàppee Ousmane Sonko ma ne la teey na xel képp koo xam ne nguur gi njort na ne mën nga fuqatee pouvoir bi sim loxoom dalay jàpp te xam nga yëfu naxa sa kandang yii yëfu amut bopp amut génn gii ñu jiñ Ousmane Sonko lii ma ne la suuxal opposition bi lan ci nar du lenn te buñ ca noppee nag fas yéenu jébbal koo xam ne nii daanaka duñu ko foog mu daal di jiite sénégalais yi tribune yéen a kaay naan nga naan leen xam ngeen tëj Ousmane Sonko mii wala jàpp ma mënta wàññi lenn ci suñu doole coow li coow li mooy xale yeewu nañu te yee nañu leen fayal laaxu xeex wi kay lenn la woon moom moo di ay élection inclusive te du deñ na askan wépp nekk ci kaso bi wul ma mani la bëgg-bëgg askan wi moom day daal di tàbbi te bëgg-bëgg gi lenn la mooy élection yoo xam ni ñëppay bokk kenn du nag kenn la waaja doon wax yàlla bu kenn lekk kenn bugaan ngay dani naan du ma ne yàlla bu kenn téye kenn dama naan force kenn du kenn ñëppay bokk mi ngi ci guddi gu bët setagul le point yéen kaay naan Ousmane Sonko ay mbiram ci boppam moo daal di lëndëm te boo moytul nag moom Sonko kaso lay daal di jëm direct source a naan waaye du ma xam moo koy tëj de l'évidence yéen kaay naan en tout cas seen janoo tey mënta ñàkk source a naan waaye la nga xam ne moom la ma xam di jàppee nit loolee toppewun ko Ousmane Sonko waaye nag coow la la ñuulal soow ma moom moo di moom Sonko tey jii mënta sàkku ab demande de liberté provisoire le soleil kaay naan lañ ko toppee ci boppam moo diis moom Ousmane ndax it ma ngay sàkku daar daar moom Ousmane Sonko fanaani rëbës ni ki tey moom Sonko moomee turbine naan maan mi ngi soobu ci xiifal libération yéene kaay naan maan bañ koy laaj aljuma wuyuwul bañ koy laaj samdeet wuyuwul l'info naan maan cell la wane de te cell googee nag boo moytul mën na ko yóbbu ndungu siin le peuple yéene kaay naan ko déet wax kay moo ko yóbbu ndungu siin ndax am na ci juróomi tat yoo xam ne Ousmane lam ca wax maar day taali ci woo nit ñi ci fitna loolee nag moo tax procureur ci boppam daal di koy topp vox populi naan juróomi charge kay la teg ci Ousmane Sonko ko l'enquête naan lañ ko teg moo diis wala dossier mortal combat bi ci ndoddam dossier force spéciale ci dam dossier commando ci ndoddu Ousmane Sonko dossier cocktail molotov ci ndoddam combat final ci ndoddam ay awokaam naan yëpp ko rek nguur gi daal ñoo yëpp Ousmane Sonko ba lu yëngu ñu ne mooma Walf Quotidien naan fi mu ne day boo moytuwul seeyal Pastef ci boppam lañ nar fa yàllaahu libération yéen kaay naan ña ngay war Toussaint Manga ak maître Ngagne Demba Touré benn talaab sow ki démb lañ daaj kër Ousmane jébbal sûreté urbaine laas naan en tout cas bu desee ci procureur moom Ousmane Sonko ma nga kaso yàgg na le point kaay naan man Benno Bokk Yaakaar ak Mor Ngom ña nga naan sénégalais yi ci boppam ñoo war a xippi seeni gët te xool xool dëgg-dëgg kan mooy Ousmane Sonko waaye ma ngay xas waa yeewi askan wi ba marday taali bugaan gee dana ci turbine yéeni kaay naan dara fa sàll nar a fëlee ak ñun sax du ngeen ko xam ndax nag dinañu tegal koo xam ne dun ca mën dara duñ ko sañ bañ antenne naan boo moytul muy Amadou Mame Diop ndax nag Amadou Mame Diop ci boppam ci pion famille fay la bokk ñu ngi def ay feem mani la ngir imposer ko sénégalais yi te nag jël amadu maam Diop mii daanaka mooy ñàkk nguur gi te pexe yi ngi jub mani la ngir daal di koy tab député yi nekk ca dagane ne Amadou maam jóob lan moo ne ci moom ndax nag lépp loo xam ne ñu ngi koy wër ci nit ngir mu mën a jiiteem réew day mi ngi ci amadu Mame Diop ña nga naan président ki Sall ñaan nan la ko ci njekk ci njekk rek Sall Amadou maam Diop ci boppam la ñu bëgg nga daal di ñu koy tabbal ndax nag bu dee gore ci yow def na ko ndax ba muy jël assemblée nationale lenge yi metti woon na wala mu ànd ak dal ak ak dignité nekk koo xam ne day boole du féewale def ay preuve am ci biir APR département bu Dagana mu def ay preuve am jiite list ba ñetti yoon nekk député ñetti yoon nekk maire bu commune bu Richard Toll 2014 ak tey boole koo wàcce boppam doon nit koo xam ne kenn déggu ko ci lenn beneenu candidat Abdoulaye Daouda Diallo le peuple naan man gannaaw accident bu ngën saar yi ba mu jàppalee njaboot yi néewi yi dal ci seen loxo moom Abdoulaye Daouda Diallo ma nga naan chauffeur si nan def ndànk nan daw ndànk dal ndànk ndax jamono ji bi baale teewul dara te lépp loo xam ne daal dinay tukkee ci accident askan wi ñoo ciy daal di ñàkk turbine naan koon ci kaw tali bi ñoom bus tata yi daal deltuwaat nan di daw waxtu woowu sunu ndaw yaa ngi réer ci géej gi ay ndaw yu bàyyeekoo woon ca lompul toll ci téeméer ak ñeen fukk ñoom it ay fan a ngi nii ñu daal di réer waxtu woowu libération yéen kaay naan man te fas booy ci njàqare la ñu nekk gannaaw ay ndaw yoo xam ne réer nañu mër Walf Quotidien naan maan lu mu neex neex jàppale ne altine tey gii du yomb turbine sport naan ma bu ñii di gàmmu daal ñii di raas déem xëppil xool moom jàmm woote ba sampal ko ab drapeau dippee ko nag drapeau de la paix daal di dajale juróom benn fukk ak ñeent ci mbër yoo xam ne jugee nañ fépp ci senegal fukki million ñu daal di leen koy tegal ci mise Doro gay daal di cay profito woo yi rawatina ndaw yi nekk ci réew mi wala ci diaspora bi ñu daal di dox ci jàmm wax ci jàmm ndax loo ci manti dégg lu dul jàmm-jàmm ko gën di woo ndaw yi nag ci ñu bàyyi xel président Macky Sall direct news naan man lu réew mi lebaloon Cheikh Béthio Thioune commune bu Mermoz fay na ko ko daal di koy tuddee ab lii la wolof naan ko nekk ci teen yàgg yàgg baak fekk la ca ak lu mën a mbokk yi ñuy ñaan jàmm